Ousmane Sonko yëngu-yëngal la ñu euh, xëyee démb ci mbeddu Ndakaaru am na ci ay kër yoo xamante dañ ko yàq yàqet am na ci tamit magasin yoo xamante ne taal nañ ko jëppet woto yu ñu taal jëppet yéen cabinet bëccëg la gu taroon lool lu ko dalee cité kër góor geek Liberté 6 ak Gédo ak feneen ak feneen yenn kabi gis ne ci réew mi ñu ne di réewum démocratie bu ñu deful ndànk daañu dem ba dootuñu am opposant ci mim réew mu ngi ci Walf Quotidien le Quotidien le Sonko euh, wane nañu seen bopp yëglu nañu ak doole ni ki démb euh, mel ni sax virus euh, geneen gu wuteeg coronavirus maanaam virusu fitna virus de la violence moom moo tàbbi démb ci Ndakaaru yéen cabinet lu bëri ci ay jumtukaay yàq nañ ko yàqet ci mbedd yi am ñu ca jëlee gaañu gaañu yu métti am ñu ca jot a loxo bokk na ci nguur gi mun a jaare Ousmane Sonko ci woote gam woo askan wi ngir ñu mun a amal yëngu-yëngal yéen cabinet foofe nag askan wi woo nañ ci Ousmane Sonko lu aju ci mbalaanu kiirlaayam ñu ngi koy nag ci jamono ji ci assemblée nationale. direct news ah, direct news euh, Seydina Omar Ba xëy ñu yeggee njumte yi nga xamante ne Ousmane Sonko def na ko ah, ca itamit euh, salon de massage gamu demoon euh, suite beauté diggante masseuse ba di Adji Sarr yéen cabinet njumte weesuwul moom usman Sonko am méttitu diggi ginnaaw ak yaram guy métti nga fab loolee jox ko ab gune gu jigéen gu toll ci ñaar fukki at bàyyi fi waa kër docteur maanaam ne noonee la ko euh, direct news fësale réew mi réew mi yéen kaay ne Ousmane Sonko ndax euh, yile mbir dina ci génnam déet euh, bokk na ci ndax dina ci mën a jaaree seetal boppam waaye nag lu wérte wóor mooy ay farandoom yeglu nañu demb ci mbeddu ndakaaru yàq nañ fi lu bëree bëri yéen kaay bi ne Assane Diouf sax borom partagé leen vidéo yi génn kaso yàggut kooke mujjee démb demoon ca kër Ousmane Sonko ba jëlee fa gaañu gaañu yu metti source a moom ne yàq nañu yàqet Ndakaaru ay farado Ousmane Sonko ay Sonkos Boys la leen dupe ñooñee jot nañoo yëglu ne xel xalaatul ñu fab usman Sonko du ko du ko yóbbu feneen fu dul këram ba tax nañu nguufaanu Ousmane Sonko dar këram ba eh, takk der munu fa eh, dugg wala boog fa ñodde Ousmane Sonko Dakar ak na mu mel bu weesoo dakaar sax yeneen gox yi am nañu jafe-jafe mu ngi ci eh, source a l'évidence l'évidence Seydina Ba mu ngi ñuy opposant Ousmane Sonko ndax duñ fi jaar jaaree dootuñu wax euh, mbiram mun nañ ko gàkkal ci wàllu politique ba faw yéen kabi di l'évidence ne siiw na ba faw waaye nag siiw la goo xamante ne gu doy waar la moom Adji Raby Sarr mi nga xamante ne moo tuumal Ousmane Sonko ne def ko daan yakkataan ci salon de massage euh, gañu ne woon euh, critique ne république bi démb yëgu yëglu na jafe-jafe ak ñaxtu ay farando Ousmane Sonko assemblée nationale ñu ngi ci muri mbalaanu kiir laayam moom Ousmane Sonko njiital Pastef yéen cabinet ne collectivité wala bo collectif di kuréel gi boot ay avocat Ousmane Sonko euh, taxaw nañu euh, tembe i tamit ngir méttitlu euh, mbir yi waajuru Mamour Diallo bu Louga toll ci téeméeri at ak fukk yéen a cabinet astuut musiba dal ci kawam ndax am nañu fa yëglu ca Louga googe ba songu kër Mamour Diallo fekk fa maire ba Sud Quotidien Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal li xew demb ci ay patriote Ousmane Sonko jot nañu itamit dar Ousmane Sonko ne xel xalaatul ñu fa jële e, ca këram googe di ko yóbbu feneen bokk na ci ñaxtu yi fépp la woon e, tal nañu jëppet ay woto daaneel ay cantine e, toj ay magasin yenn cabine lu ko dalee cité kër góor gi université Cheikh Anta Diop VDN ba ca Liberté 6. li quotidien li xew mooy tuuma yi tegu ci ndoddu Ousmane Sonko ab xale bu jigéen aji Sarr moo ko ko ne dafa yegg ci ko am yéen cabine di ñu dégtal Adji Sarr moomule Adji Rabi Sarr lay wuyoo yéen cabine toll na ci ñaar fukki septembre niki ren waaye nag bu muy am fukki at ak juróom benn la të daanaka ca la def njombeem bu njëkk moom Adji Raby Sarr mm. dañu wax ci les échos mu ngi ñuy dégtal enquête bi bouclé nañ ko daanaka lépp yemb na dossier googee dañ ko jébbal tey euh, procureur moo cay des yéene kabidi les échos ne ay farando Ousmane Sonko euh, yëglu nañu démb tal nañu jëppet lim bu takku ci ay woto foofe ca Sacré Cœur Euh, bokk na ci fépp fu ñu gis moomeel waa France jot nañ ko daaneel euh, mu ngi ci les échos Vox Populi euh, Vox Populi ne ay jegeñaale Sonko ñu ngi leen duppe ay sonkole yéen cabinet ñoom ñoo yee fitna démb ci Ndakaaru ngir itamit taxawu seen leader di Ousmane Sonko Euh, mu ngi ci euh, Vox euh, Populi. las ne sonkis yaa ngoog jot nañoo taal yëppet fépp ci Ndakaaru noonee la ko las fësale ci xëtam bu njëkk Ousmane Sonko ne xel xalaatul mu ji section de recherche ndax mbalaanu kiir laayam ba léegi mu ngeek moom tuuma ya Adji Sarr teg ci ndoddu Ousmane Sonko las xëye na ci. le témoin ne intifada la woon jàmmarloo doxoon ci diggante ay farando Ousmane Sonko ak takk der ya yëf ya lool bu weesoo Ndakaaru sax yëf ya xaroon na ca Ziguinchor Thiès ak Louga yéen a bi moo ñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk. la tribune ay jege ñaale Ousmane Sonko wàccoon nañ ci mbedd mi euh, doon yéglu militant ak sympathisant yéen a bi ni cité kër góor gi lañ ko dooree dañoo sax fab ak moo cité ba mu doon seen quartier ci saasi bëggatuñu Ousmane Sonko euh, mun fa génn waaye nag yéglu euh, avocat Ousmane Sonko nee nañu sàmmonteeg loi nguur gi duñ ko seetaan benn yoon muy salfañe Ousmane Sonko. Le Soleil le soleil ne levé euh, maanaam jëlee euh, wala boog muri wala teggi mbalaanu kiirlaayu usman Sonko gaa yaa nga ca uh, procédure ba door nañ ko ci jamono ji yéen cabinet gën nga uh, sori wala boog gën ngaa yàgg juróom-ñetti euh, fan euh, ca lay toll mu ngi ci le soleil. l'observateur l'observateur ne usman Sonko mel ni kuy soog a door ci géew politique bi bokk na ci tamit lañ ko jot a ci wàllub salon de massage gammu néew koon loole nag jur na fitna ci Ndakaaru ay jege ñaaleem ne xel xalaatul. ñuy seetaan Ousmane Sonko ñu koy teg euh, loxo euh, section de recherche moom euh, jeexal na enquête ba jébal na ko procureur bokk na ci ñeent fukki doomi aadama ñeent yu ñu jot a teg loxo démb ci mbeddu Ndakaaru. Libération Libération xëy lu yéeme Seydina Ba di tabaxum immeuble googe daanu ca Xodaba. xod xodaba noonu lañ ko duppee bokk na ci autorisation de construire amuñu ko woon ci googu lépp tax entrepreneur ba sax amul benn papier guy wane ne war na fa mun a tabax bokk na ci te mu ne de juróomi doomi aadama euh, ñoo ca euh, faatu ci googu lépp musiba mu ngi ci euh, libération. record am taxaw seetlu ci football kat bi di Pape Alioune Ndiaye mi toll ci fanweeri at ak benn diggante ak équipe nationale ndax dina wéyam déet. moom la record xëy di laajte point d'interrogation gàngoog suñu lamb suñu lamb xëy di natt ñaari mbër yi le Modou ak Balla Gaye ñoom ñaar eh, kan moo ci ëppale raaya ci lamb ji yéen cabinet Modou Lo moo ko ca raw ndax Modou Lo dégg na eh, roi des arènes dégg na tamit eh, mbër mi waa ANPS gën a ràññee ci wàllu bëre dégg na fi tamit moo fi gàdd woon claf noone la ko suñu làmb fësale ci xëtam bu njëkk gis ne Modou moo gën a xarañ Balla Gaye ci ay ndombal tànk yamu am